commission sociale bi aju ci kuréel gi di junnatun liman nazamaho di kuréel gi cheikh mouhamadul muntaxa mbàkke taxawal ngir ñuy taxawu mboolem askan wi loru ci mbënd mi ci dëkk bu tedd bi di Touba yëkkati nañ seeni jéego ci ndigalul sëriñ bi dem nag seeti mboolem ñetti njaboot yi nga xam ne nii dañoo am ñu ñàkk seen bakkan ci mbënd mi le ci délégation bu takku jébbal nañu lu tolloog ñaari million ci suñuy koppar jébbal ko ku nekk ci ñetti njaboot yooyu yile boole ci nag kàddooy masawu ak ay ñaan yu bàyyeekoo ci cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké xalif général des Mourides. ngir yéen ñi bokkam xam nañ ne sax euh, waajuram ma nga Fuuta te it allah dinañ dem foofu àgg fa. ndax jaral nañu lépp loolu ndax ndax sëriñ bi moom yitteem ji mu am ci doomu aadama amul fu mu ko yemale kon moo tax ñu ànd ak kilifa yii kii ngeen gis mooy sëñ euh, Abdoulahad moom sëñ Habibu moom kilifa gu mag la ci dëkk bi jiite ci kanam topp ci sëñ Habibu mu nga xam ne mooy doomi sëñ Fallu ñoom ñaar ku gis kii rek gis nga ki ci des euh, sëñ Abdoulahad Bousso mi moom tamit moo jiite commission sociale bi nga xam ne mboolem ndimbal yi ñuy def ci moom lay jaar bokk it ci njabootuk sëñ Tuubaa euh, sëñ Mourtala Lo mi nekk ci commune bi remplacé fii daal di fi toggalaale maire Abdou Lahad Ka ak sëñ bi daf ñoo boole ah, kon li ñuy def dañ ko war a ànd euh, dëkk fii itam ku ne xam ne ne sëñ Ñaŋ nii Euh, li tax lépp yomb moo ñu ko yombalal. ndax dafa nekk condition sociale waaye tamit tund yi ak xur fii yëpp mu doon ko xam ne poste de santé yi nekk Touba yëpp moo leen di coordonné kon moom euh, taxawaayam it moo yombal lii ba lépp ñu mën koo xam man fi ak délégation bi ñu àndal ñëpp waaw kon ngeen xam ne euh, chef de quartier bi ak yéen ñi ak chef de village bi ak mboolem fi nga xamante ne mooy mooy mooy mooy euh, gaar bi euh, defe naa gaar bu gaar bu mag la. jàkkee moom waaw Touba Mosquée la ba tey kon mboole seen mm. ñu ngi leen koy euh, ziyaare te di yeesalaat suñu ñaan ci moom di di wax ne rafet nañ jot ne fii mu ko defee ak nii mu ko defee mm. ku suñu borom nar a texeel donc lañ daan gis mandarga yooyu ci moom kon rafet nañ ci njort la ca topp rek. mooy sëriñ bi am loo xamante ne daf ko yëkkati ngir ñu teg ko ci loxo yi bokkam waaw bu ñu jox jokkoo ay waajuram incha allah ba waajuram ne ñu jox leen ko dañ koy jox benn la su fekkee dañ ko faa war a yóbbu it ñun njëkk nañ ngir yóbbu ko ba foofu waaye dañu war a ñëw ba ci fii massawu leen ba ngeen xam ne incha allah am na limu ñaari million yoo xamante ne dañ ko jox ndàmpaay ay bokkam te loolu ñu def ko ci turu sëriñ bi ak ci turu commission bi mu junnatum li man nasa moom sëriñ bi mooy yónni sëriñ Abdou Lahad Mbacke mi sëriñ Abib topp sëriñ Abib ci Touba ci kanam sëriñ Moustapha Lo moom moom muslim sëriñ Touba moom bokk ci adjoint maire ak sëriñ Youssou Diop ñi nga xam ne moo jiite Hizbut Tarqiyyah sëriñ moom sëriñ Modou Khary Niang ñu ñëw teewal ko fi ak man mii di wax ak ak ñi ñu àndal yépp ñu ñëw teewal ko fi ngir masawu leen ci xew-xew bi fi am ci sang boobaak léegi nag mu ngi ci xelam mu ngi itam ci sunu xel ñun ñi mu fi yónni ñëpp waaye xam nga ne dëkk bi dafa tolloon foo xam ne euh, jóg jafe woon na nit ñi sonnoon nañ ñu nekk ci lu jéem a xeet ñenn ñi ak jéem a ubbi yenn yoon yi ba nit ñi mën a dem mën a dikk loolu moo tax mu mel ne lu xaw a diib waaye xew-xew bi mu ni mu dale ci kaw seen kaw ni la dale ci kaw ñëpp sëriñ bi yëg na ko mi ngi koy tiisoo bu baax a baax waaye nag dogalub yàlla la te suñ borom nag lu mu dogal rek daa fekk muy la gën waaw te demeen yi itam aw demin la boo xam ne koo demee rek ñu am ci moom yaakaar ndax demin la boo xam ne la li ñu wax ne moo ko sabab la ci njëkk mooy la doon yéene mooy xetli ab jullit di am di xaritam yàlla dogal ca lam ca dogal kon mën nañoo xam koo jàppe ni ku jógoon di wuti lu baax far faatu dab ko ceew ni loolu nag la ci suñu borom waxoon rek la ñuy ci moom moo tax sëñ bi waxoon ne kon nañ ko fi ñëwal indil ko ay njaalam eh, masawu leen itam. yéen sëñ bi ci ak ñaanuk sëriñ bi moo ëpp doole lépp dañ na dina ci doon misaal rek ñaari million la loo xamante ne ngeen ko jàppalee ndax eh, sang. taxawaayam ci ci yow. lu mel ni moom buñ ko boolee ñaanuk sëñ bi yaakaar naa ne dina soog a mat. ñaanuk sëñ bi moom moo ëpp doole lépp. dama leen di ñaanal suñu borom dimbali leen euh, defal leen lu tax ngeen xam ne fu mu jëm. moo koy gënal fi mu jógee yéen tam du ngeen dara. ci dara ji sëñ Tuubaa. mboolem ñetti njaboot yooyu nga xam ne nii kuréel gi fekki na leen jaarale ko ci commission sociale ñoom itam jéego yi nag kowe na seen njort lool. ba sax defal na leen ba fàttaloo leen lenn ci naqar wi nga xam ne nii ñu ngi koy dund booba ak léegi. nit nag bu leen yàlla boole. Hmm. ba ndogal bu agsi nga ñëw ba ci këram jaale ko li fi des yëpp xanaa loolu kolleer la rek hmm. jaale bi rek moo am solo li ngeen ci bëgg yàlla na yàlla hmm. yàlla na yàlla àgg seen i yéene. def lu baax. def ngeen lu baax wax dëgg yàlla kontaan nañ li ma xaw a mer yëpp dañ kontaan. ndax ba liy defee koñ bi yëpp dañoo mbooloo taxaw ñu doon benn ñu ma jàppale ba yàlla dogal ñu génn ñu jox ko sappoor yi ñu ngeen ñu woon noonu la waa koñ bi noonu la ñooy fii ñu woon ñun ñëpp ay benn lañ léegi ba demee ba dëkk bi rakk kii moo doon moo ñëw bañ ko waroon def mu ne def leen ndànk ba waa Touba mun nañ waa Touba am na ñu ñëw ba ñu neexee ma ne ko waa Touba nag ku ci ñëw na ngeen xam man la bu dee man ay benn lañ man la ndax fii ma taxaw lépp waa dëkk bi bu ñëw taxaw foofu ndax fii la ñu daje kon ba loolu xëyee ñoom ñëpp dañoo bool ñu taxaw ci ba yàlla bu mu ñu génne ko ñu jox ko ci loxo sapeur yi mën nañu dellu seen kër kon loolu yëpp fii lañ daje. ba yàlla dimbali ba nañ ko nëbbi ndax Australie nag ju Touba nu mel ñëpp xam na mun ngaa bugg ñëw ni sax fekkee ndox bi moo la téye am na ñu xam ne ñëpp dañoo génn waaw loolu ba ma mu ne ah wax dëgg yàlla nga wax dëgg la ndax yow ni sax wane nga ko yow ni ndax bitik ay xale ya xoolal ñu laa bàyyi damaa naroon tëj ñu ma amul problème loolu wax ak li nga wax ni lépp benn la man na guy. lu sëñ Touba ku mu sëñ nag bu la sëñ Touba yabalee ñu jóge ci moom. sa xol war naa sedd. suñu naqar day jeex na tey. yaayam bi ba léegi day jooy. ku mu boo sax sang la lay wooy. daf ko taxoon te mu ñaar bant rek la ko yàlla jox yu góor ku mu la lay wax. waaye su naqare jeex na tey jii sëñ Youssou mii wax dëgg yàlla gisuñu gisuñu ko waaye nu ko gis ci télé bi yëpp pasté fam toppal sëñ Atou sëñ bi sëñ bi moom daanañ fa dem di ko siyaare hmm. bi sama suy bi la sama wala man mii ma fay dem kon nag nga yëgal sëñ bi di ko daal ay ndiyaayam seen xol sedd na ndeyam xolam sedd na bàyyam xolam sedd na ay càmmoñam yëpp seen xol sedd na ak i jigéenam yàlla na yàggal taxawaay sëñ Muntaxa ci yoon bi ak yéen ñi ànd ak moom ñëpp barke sëñ Tuubaa mm-hmm. suñu xol seet na guy mm-hmm. lii nag sax na lool mm-hmm. ñaa ngi doon sëkk naka bañ koy denc sëñ bi mi ko doon taxaw du sëriñam ñaan sëñ Muntaxa la ca jiital ñaan sëñ dinaa ci def ñaan gi pare dinaa ko ñaan boole ci mu jiitu ci bàmmeelam bañ ko denc daa taw bu tooy xëpp kon loolu daal xel kon nag suñu xol yaakaar gën naa dëgër suñu jot gën naa rafet jërë ngeen jëf noonu seen sëñ bi di siyaar bu baax yéen suñu jëggal tool bi Touba. na ci fàttali rek kuréel gi di Junatun Liman Nazamahu Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké xalif général des Mourides samp ko ñu fasantikoo ci commune bu Touba tubaa ca kanam ak Hizbu Tarxiya ak mbooleem julliti ak taalibe yi seen liggéey ba ko tàmbalee ak léegi ëpp na ayu bis ci ay wànqaas yu fasanti ko commission sociale di ci amal liggéey bu am solo. jëneen jëfa ngi joo xam ne nii day daal di firndeel. taxawaay bu am solo bi nga xam ne ni Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké du dañ mu ko di ko am ci mboolem askan wi wa